asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dalak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bayeekoo QTV a Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Kole ñu seeti bopp xibaar yi banxaasub Qcell bi mu doon banxaas bu yëngu ci wàllub jokkalante bi ci samedi bi ñoom ñoo ngénte seenub antenne bu ñu samp sa dëkkub Kantoora gi mu nekkee sa diwaanub Ñamanaar gi matuwaay bi ñu jël ko rek pour yaxanal lu aju ci wàllub jokkalante bi ginnaaw ba safara génne ci place sànnikaay mbalit bu nekk sa baakoote ñu xamee ko sa baakoote dom site mu tax nag ñu bari gàddaayoo ca place boobu askan bu fa nekk di yeewoo ñoom nag ñu ngi ñaax nguur gi pour mu jàppale leen ci num gën a gaawee ba ñu ngénte ab banxaas buy jàngale lu aju ci wàllu métier ci at bu ñu passé kiwsel nag ñoom doxantu nañu sa place boobu noonu pour xool nag ndaw yu fa nekk di jàngi métier seen taxawaay fu mu toll si jamono ji mbokk yi li doonoon bopp xibaar yi ñu taxil bu ñu dellu see yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi. Qcell Limited doon banxaas bi yëngu ci wàllu jokkalante bi ci samedi bu ñu passé ñoom naka ñoo dem sa dëkkub kantoora gi ñu ngénte fa naka seenu pool bu ees boo xam ne naka dañ ko fa sampu. matuwaay bi ñu jël ko rek pour gis ne yombalal nañ askan wi lu aju ci wàllu jokkalante bi surtout ba ñoo xam ne naka ñoo nekk di jëfandikoo line up QCell bi QCell nag seen antenne bu ees bu ñu samp sa Ñamanaar village ñu ne dina yombalal askan bu yeewoo ci dëkkub Ñamanaar gi lu aju nag si seen wàllub network bi tax na tamit naka ñu ne dëkk yoo xam ne ñoo wër naka dëkkub Ñamanaar gi ñoom it seen mbirub jokkalante bi dina yombu Alaaji Sinthiou Diallo doon alkaalo ba dëkkub ñamanaar ki ak ki nga xam ne moo jiite jigéen ñi muy wees yi Manda Sissoco ñii ñëpp wane nañ seenu mbégte ak seenu kontaante tamit naka rafetlu matuwaay goo xam ne QCell jël nañ ko pour naka yaxanal lu aju ci wàllu jokkalante bi ci seenu dëkk bi ñoom it wane nañ seenu mbégte ak seenu kontaante ci baaxaayu network QCell gi bu ñëwee naka ci seenu boor boobu tamit naka ñu wane ne line up QCell bi naka seenu network bi baax na foofu torop ndax daf leen dee jàppale pour naka ñuy dégganteeg seenu mbokk yi nekk ci àddina si alhaaji Sinthiou Diallo di alkaaloob dëkk bi ginnaaw doon gaaral kàddoom moom wax na ne bu njëkk bi naka daf daan jafe trop pour ñu am naka network daf daan jaral ñenn ñi sax ñi yéeg ci kaw garab yi mu ne waaye naka léegi sant yàlla mun ngaa jëfandikoo sa line up QCell gi di doxantu fu la neex wala foo munta nekk rek mun ngaa jokkalanteeg say mbokk mu ne lii naka mbirub taarix la te si jamono ji naka ñun lu ñoo def rek mooy ñaanal banxaasub QCell gi pour ñu am ab yokkute ci seen wàllub liggéey bi ku jiite jigéen ñi di Manda Sissoho moom ginnaaw la gaaral kàddoom mu ne ci ay at yu ñu passé ñoom dañ daan am jafe-jafe ci mbirum network bi ba tax naka ñu bari ci ñoom dañ daan jënd line-up Sénégal bi di ko jëfandikoo ci seenu foofu mu ne waaye naka léegi sant yàlla ñu ngi jaajëfal naka Qcell ndax naka léegi mbirub jokkalante gi naka yomb na tamit naka seenu network bi dina yomb mu ne ñu ngi wane seenu mbégte ak seenu kontante ci yokkute goo xam ne naka banxaasub Qcell bi indil na leen ko foofu ma Mamadou Bari moom mu doon QCell seen senior corporate sales supervisor bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka banxaasu QCell bi si jamono ji naka ñoom ñu ngi taxaw temm pour gën a yaatal naka seen banxaas yi pour yombalal askan wi lu aju ci wàllum network bi ak it yombal naka li nga xam ne mooy mbirub jokkalante bi bari mu continué di wax ne matuwaay gi naka dañ ko jël rek pour gis ne gën nañoo dëgëral li nga xam ne naka mooy network QCell bi yombalal naka seen client yi ni ñoo mën a jëfandikoo seen sim bi mën a jëfandikoo tamit lu aju si Q power bi Q money ak seen yeneen service yoo xam ne naka QCell mu ngi koo naka ñoom dinañ gën a takk seen tànk tipeñ pour gis naka seen client yi kontaan nañu mu continué di wax ne pool boo xam ne naka ngénte nañ ko ci place boobu noonu dina isi naka ab yombal bu ñëwee naka ci wàllu jokkalante bi tamit naka mu ne mu ngi ñaax naka client yi pour ñu jëfandikoo li nga xam ne naka mooy banxaasu Qcell bi ndax it am nañ service bu ñu naan e-Fankanta e bi naka bu fekkee ne sa crédit jeex na fekk naka yaa ngi ci place boo xam ne mun na jënd crédit mun ngaa leb naka Qcell jaarale ko naka ci seen service e-Fankanta bi nga am sa crédit naka jokk jokkalante ak ñi nga xam ne naka ñooñ nga bugg a jokkool ngénte projet bi naka doon na mbir boo xam ne naka kilifa yi ñu ngi ko rafetlu te naka ci ngénte gi tamit joxe nañ naka ay jumtuwaay yoo xam ne jumtuwaay yëpp kiwsel la mu doon mbir yoo xam ne naka askan wi dañ koy mën a jëfandikoo yi ñu joxe naka mu ngi mel ni ci ay t-shirt joxe nañ koppar joxe nañ fuun joxe nañ ay kaab muy mbaxana ak it caabi yoo xam ne naka banxaasu kiwsel bi ñoom ñoo ko defaral seeni bopp baakote dong site doon place bi ñu dee sànni mbalit sa baakote foofu naka la safara génn mu tax naka askan bi yeewoo sa boor boobu ñoo bari naka ñoo gàddaayu ñenn ñu fa des naka ñu ne ñu ngi ñaax nguurub Gambia bi pour naka ñu jàppale leen ci num gën a gaawee ndax naka ñu ngi am jafe-jafe jëmale ko ci seen wàllu dund gi QTV naka bañ fa yeggee pour xool naka jafe-jafe goo xam ne askan waa ngi koy gis nañ ne naka saxaar si ba tey rek mu ngi des sa foofu te naka tax na ñu bari naka ñu ngi see am naka ab jafe-jafe jëmale ko ci seen wàllu wér bi askan woo xam ne naka ñoo dikkee ci tundi boobu si jamono ji ñoom ñu ngi continuer naka di jànkuwanteel ay jafe-jafe surtout ma naka xale yoo xam ne seenu place bi mu fa muy buntu SOS bi ñii naka ñu doon xale yoo xam ne ay Green Bayo leen te naka ñu dëkkee ci boor boobu ak itamit ñoo xam ne naka ñoo fa di yëngu ci seen wàllum njula bi Aysatu Cissé Danso moom mu doon naka PRO si Bakoteh annexe Lower Basin School bi ginnaaw doon gaaral kàddu wax ne naka safara gi yàqal na leen torop ndax saxaar su nekk di génn naka ci sànneekaayu mbalit boobu mu ngi leen di indil jafe-jafe ci seen wàllum njàng mi ndax naka taalibe yi ak jàngalekat yi mënuñoo nokki naka nooy bu baax bay mun a jàngal naka ñi nga xam ne ñooy taalibe yi mu ne naka mu ngi ñaax nguur gi pour naka ñu jàppale leen ñu génnee naka jafe-jafe goo xam ne dañ koy yàggaa jànkuwanteel si place goo xam ne naka foofu lañ dee sànnee mbalit Fatou mu continué di wax ne jafe-jafe gu ñu nekk di am si jamono ji mu ngi leen di sonal torop ndax naka mu ngee delloo ginnaaw wàllum njàng mi tamit naka mu ngee sonal xale ci seen wàllu wér yaram Pa Abdou Bilal di yeewal sa dëkku Bakoteh bi ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne jamono ji naka bu waxtu julli jotee doo gis naka ñu bari si jumaa ji mu ne ndax naka lu ko waral jumaa ji dafa fees tepp ak saxaar mu ne boo ubbee naka jumaa ji di gis ne foofu saxaar kese moo fa nekk te waaye naka du mun a julli ci kaw loolu mu ne ñi nga xam ne naka ñooy dëkkandoo yi surtout ma ñoo xam ne naka ñu ngi am feebar sew yi ci mel ni asma seen feebar yi naka dafa jógaat mu ne nguur gi naka war nañ leen a jàppale ci num gën a gaawee Kumba Bojang moom min mu nekk koo xam ne nag mu ngi dëkk sa baakote ginnaaw doon gaaral kàddoom bu wax na ne place yi sànnikaay mbalit bi dafa jege seen kër yi torop te naka yàgg nañ di jànkuwanteel jafe tamit yàgg nañ di oote li nga xam ne naka mooy ndimbal mu ne naka si jamono ji moom lu mu bugg rek mooy mu gàddaayu ak njabootam gi dem naka si place boo xam ne foofu la moo amee naka dund gu baax mu ne man ak suma njaboot yi dëkk nañ fii daanaka lu toll si ñaar fukki at te naka saa yu nekk dañ dee am naka jafe bu fekkee ne naka safara génn na ci bi nii mu ne jafe-jafe gi naka def di gën a yokk bu ñu nekkee naka ci biir nawet gi mu ne maa ngi ñaax naka nguurub Gambie pour ñu jàppale ñu ñu génnee fi naka sànnekaay mbalit bi mu ne man naka am naa doom bu jigéen te si jamono ji naka mu ngi joytu ne dënnam bankoy métti mu ne ba ñu demee naka ci lopitaan bi dañu wax ne dafa war a def naka li nga xam ne mooy cardiac surgery mu ne ci atum 2018 demoon nañ naka si dëkkub Indie bi pour gis naka doomam bi am na surgery mu ne si jamono ji naka saxaar siine daf ko yëkkati waatal naka feebaram nguur gi mu ne am naa yaakaar ne mbalit bi naka buñ ko fi génnee ñu bari naka nañ delluwaat ci seen sago nit ñoo xam ne naka ñoo nekkee ca Bakoteh ñoom naka yàgg nañ di joytu naka lu aju ci wàllu safara gi ñu ne saa yu nekk naka foofu daf di faral naka di am safara ci fan yi ñu nekk nag gis nañ ne banxaasu KMC bi fens nañ fi nga xam ne nag mooy sa nekkaay mbalit boobu pour gis ne nag aar nañ askan wi tamit nag kilifa yi ñu ngi continuer nag di def ay matuwaay pour gis nag place sa nekkaay mbalit googu jafe-jafe gu moo indil askan wi ñu saafaraal ko waaye nag si jamono ji askan wi ñu ngi nag nguurub Gambie bi pour ñu jël nag matuwaay ci nu gën a gaawee xeetali leen nag si jafe-jafe gu ñu nekk banxaas bu ñu naan Crab Island Tivat Centre mu doon banxaas boo xam ne naka dafa nekk di jàngal ndaw ñi lu aju ci wàllu métier gi ñoom naka seenu banqaas bi ñu ngi ko ngénte naka ci at bu ñu passé ginnaaw loolu QTV naka doxantuwaat nañ fa pour xool naka seenum njàngale bi fu mu toll ak ak itamit ndaw yoo xam ne ñoo fa nekk di jàng métier seenub taxawaay naka fu mu toll banqaas bi naka ñu ngi joxee lu war a toll naka si juróom-ñaari programme muy maanaam juróom-ñaari métier yu bokkul te naka li toll si téeméer juróom-ñaar fukk ak juróomi ndaw ñoo fa nekk naka di yokk seenub jàng mu aju naka ci wàllu métier gi buntu jàngekaay bi nag doon na banqaas goo xam ne nag dañu taxaw pour jàppale ndaw ñi lu aju ci wàllu métier gis na nag yombal nañ seen amub liggéey bi Tivaat Centre bi nag doon na banqaas boo xam ne nag seen njàng mi dañ ko dee commencé naka juróom benn weer dem ba si juróom ñeenti weer te nag lii war a toll si juróom ñaari banqaas ñoo fa nekk muy banqaas yoo xam ne nag dañoo jàngale ci métier yu bokkul juróomi at nag ci ginnaaw amoon nañ ab campagne boo xam ne nag National Assembly member muy député bu Banjul North muy wuyoo ci Ousmane Silla moom joxe woon na dige naka di wax ne dina doole naka banqaas bii nii ba ñu am naka ab junior school pour gis ne jàppale nañ xale aju ci wàllum njàngame waaye naka banqaas bi dañ ko mujje tëj ci atum 2012 ci lëkkaloo goo xam ne nag def nañ ko ak nguur gi ak itamit ñi nga xam ne nag ñooy seen àndandoo yi TVAT project bi nag indiwaat nañ ko ci at bi ñu passé pour gis nag doole nañ ndaw ñoo xam ne ñoo nekk ci biir réewu Gambie bi surtout ma nag ñu nekkee ci tund yi nekkee ci dëkk Kombo gi matuwaay bi nag ñu jël ko rek pour gis nañ doole nañ ndaw ñi te si matuwaay googu ñu ngay jaajëfal nag seen àndandoo yi Mariama Diawo moom mu bokk naka si fes baaj bi si ñoo xam ne naka ñoo jàng métier si buntu jàngekaay boobu moom naka jàng na lu aju naka ci wàllub installation ginnaaw doon gaaral kàddoo mu ne nit ñi naka dañuy yaakaar ne góor la ko war a def naka métier googu noonu mu ne waaye naka métier ñëwul pour góor rek jigéen tamit mun na see dugal loxoom ginnaaw ba mu graduate mu ne moom naka mu ngi jaajëfal banqaas bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour jox ko xam-xam ko aju naka ci wàllu métier gi mu ne lii naka mu ngi ko rafetlu te si jamono ji mun na moo wax ne naka moom moom moom boppam ndax mun na moo ubbi naka banqaasu boppam def naka njulaw boppam te fekk naka kenn du ko sonal Aliou Sagna moom it naka mu bokk si ñu njëkk wàcc si buntu jàngeekaay googu ginnaaw doon gaaral kàddoon mu ne moom naka depuis ba muy ñëw foofu amutoon naka xam-xam gu màcc jëmale ko si lum jàng mu ne waaye naka jàngalekat yi jàppale nañ ko won ko naka satta yu bari yoo xam ne yooyu la moom mun a jëfandikoo pour gis naka taxaw na ci lum nekk di jàng ci programme yoo xam ne naka yooyu la banqaas bi nekk di jàngale ñu ngi jàngal ndaw ñi naka métier yi ci mel ni ñaw lu aju naka ci wàllub liit mbirub sampu mbirub électrical maanaam muy mbirub courant lu aju ci wàllub plumbing lu aju ci wàllub satellite mbirub solar installation ak it yeneen i métier yu xale yi mën a wéeru pour am ci dara Ousmane Sylla moom mu nekk Crab Island tivaat seen chairperson bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax ne naka buntu jàngeekaay bi si jamono ji ñoom am nañ ene pour gën a yokk ndaw yoo xam ne naka yooyu la ñu nekk di jàngal mu ne te si lii naka nañ ci lëkkaloo ak seen àndandoo yi mu ne ñi nga xam ne naka ñoom ñoo jot a jeexal seenum njàng mi dinañ leen taxawu pour gis naka am nañ taxawaay bu dëgër ñu mun a am naka fu ñoo wéeru ci taxawaay boo xam ne tamit jël nañ ko rek pour doole lu aju ci wàllub kaaraange réew mi li war a toll si fukko ak juróom-ñaari nit yi yëngu nag ci wàllub kaaraange bi ñoom naka yokk nañ leen xam-xam lu aju ci liggéey gu ñu nekk di def ngir ñu mën a taxawu seen bopp aar naka bakkanub askan bi Matar joon moom mu doon naka directeur ci banxaas sub Crab Island Tiva Centre bi moom naka ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne si jamono ji naka ñoom ñu ngi jël matuwaay bi pour gis ka dooleel nañ xale yi taxawu leen ngir gis ka ñoom it am nañ seenum njëriñ ëllëg mu continué di wax ne daanaka li toll si fukki million ci ay ndaw yoo xam ne naka ñu ngi nekkee si dëkkub Afrique bi doon nañ ñoo xam ne naka amuñ xam-xam gu màcc jëmale ko ci wàllu métier bi te ñu bari naka dañ dee génn naka si buntu jàngeekaay yi mu ne ñu si bari naka bu ñu génnee dañ dee nekk naka di wut ay liggéey ci marché yi mu ne kon naka am buntu gu mel nii bu taxawu xale yooyu dina doon mbir boo xam ne naka ab yokkute la banxaasub tivaat bi naka si jamono ji ñoom ñu ngi taxaw temm rek pour dooleel ndaw ñi saafaraal naka jafe-jafe goo xam ne ñu ngi ko yàggaa joytu muy ñàkkub liggéey gu ñoo joytu ci réew mi moo tax naka ñu ubbi seen bunt bi pour jox leen xam-xam bu aju ci wàllu métier buñ ci paree naka ñu taxaw leen pour gis ne naka ndaw ñi am nañ seen métier bopp mayoress bu Banjul bi muy wuyoo ci roxi Malick Lo moom gën naa dëgëral kàddoom mu aju naka ci wàllum njunjaaj mu ne naka njunjaaj doon na mbir boo xam ne naka du ko nangu benn yoon te naka du toog di seetaan kenn mu ko def naka bu ñëwee ci banxaasam gi kàddu gi naka mu ko gaaral si ndaje mu am naka ci samedi bi jaarale ko digganteem ak askan bu yeewoo naka sa diwaanu Mos Road nekk sa Banjul Central ginnaaw mu doon tontu nag ci tuuma yoo xam ne ñu ngi ko joxoñ ci kansulam gi Rohey Malick Lowe moom dëgëral na ne kansulam gi ñu ngi taxaw nag pour gis ne lépp loo xam ne rek mu ngi aju ci wàllum njunjaaj génnee nañ ko ci seen banxaas bi mu continuer di wax nag njunjaaj doon na mbir boo xam ne mënut a yóbbu te moom nag lii mbir la goo xam ne du ko nangu benn yoon ndax naka du nangu benn nit naka di njëriñoo koppar goo xam ne naka faykati bi lempo yaa ko fay mu continuer di wax ne naka mu ngi ñaax askan bi yeewoo sa Banjul bi pour naka ñu xam ne kansul bi ñoom ñoo ko moom ñu moomale ko seen bopp jël projet bi naka moomale ko seen bopp mu ne naka dinañ xam ne kanso gi dañ taxaw naka pour doole lu aju ci wàllu aada gi ak li nga xam ne naka mooy yokkute dëkk bi mu ne njuuj ndaaj naka si jamono ji bari na naka ci banqaas yu nekk di liggéey ci réew mi mu ne waaye naka man ci suma wàllu bopp dinaa taxaw jiitu gis na naka tëral naa ay soto yoo xam ne naka dafay jàppale ci ma banqaas bi ba nga xam ne naka njuuj ndaaj dafa mën a dox mu ne depuis ma jëlee naka suma bureau bi ba tey maa ngi jéem a fexe naka pour gis ne fay naa bépp bor boo xam ne naka banxaas bi am na ko mu aju ci wàllub lempo wala bor yoo xam ne naka mu ko amal yeneen banxaas yi mu ne naka ci matuwaay googu maa ngi jël tamit ay taxawaay naka pour gis ne bàyyi naa xel liggéeykat yi bàyyi xel naka liggéey bi nu mu nekk di doxee pour gis ne naka yokkute am na ci council bi tamit naka njuñ daaj bu mu fa mun a jaar Mayolo ba tey rek mu continué di wax ne moom mu ngi lëkkaloo ak ñi nga xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci council bi jaarale ko si nguuru Gambia bi pour gis naka dooleel nañ ñi nga xam ne naka ñooy waa Banjul isi ab yokkute ci dëkku Banjul bi saafaraal naka jafe-jafe yoo xam ne waa dëkk bi ñu ngi koo jànkuwanteel mu ne naka mu ngi askan bi yeewoo sa Banjul pour naka ñu bennoo dajaloo naka gis ne ñëpp naka lëkkaloo nañ liggéey ci mbir yoo xam ne dafa isi yokkute ci city bi ba tey tamit mu ne projet yoo xam ne naka yooyu la mu tudd mu doon ay projet yoo xam xam ne naka council bi ñu ngi ko fas yéene indi pour gis ne dëkk bi am nañ ab yokkute ñu ngi cee dox tamit naka ñu ngi cee lëkkaloo ak seen àndandoo yi pour gis ne naka am nañ koppar gu doy guñ koo liggéeyoo ba tey tamit mu continué di wax ne town hall meeting bi muy maanaam ndaje mu nekk di am askan wi doon na mbir boo xam ne naka bokk na ci yokkute bi ndax bu ñu ci wantee xalaat dinañ xam naka sato yi ñoo mën a jëfandikoo pour gis naka indi nañ ay yokkute ci dëkk boobu mu ne te bokk na ci naka projet yoo xam ne dañ ko fas ne taxawal pour gis naka dooleel nañ ndaw ñi gis ne tamit taxawu nañ naka marché bi def naka ay wanag ci marché bi lëkkaloo naka gis ne council gi naka matal na liggéey gi mu ne tamit naka kanso gi ñu ngi taxaw pour gis ni doole nañ xale yi naka lu aju ci seen wàllub njàng mi ak i tamit mbirub yokkute bi mu ne kon naka maa ngi oo ñëpp ñu sànni ma seenub loxo gis ne naka doole nañ jàmm ak it bennoo ci cité bi mu ne bu ñu nangu benn yoon pour politique naka xaaja lañu nañu jéem a dewoon benn xam ne naka dëkk bi ñun ñoo ko moom dajaloo naka booloo doon benn mooy isi naka ab yokkute ndaje bi nag jaarale nañ ko ci luwaa goo xam ne nag ñu ngi ko tëral jëmale ko nag ci nguur gu ndaw gi tamit nag may nañ bànqaas bi nag pour mu def nag façon lu mel nii mayo bi nag ñaari at yu nekk dina am nag ndaje ak askan woo xam ne nag ñoo nekk ci dëkku Banjul gi matuwaay bi nag ñu jël ko rek pour waxtaanee projet yoo xam ne yooyu lañ fas yéene tëral ngir essayer ab yokkute wecci wante xalaat xool nag satta yu ñoo mën a tëral pour gis ne nag am nañ ab yokkute ci dëkk boobu matuwaay gi rek ñu jël ko rek pour gis ne nguur gi nag doxal doxalee nañ ci anam goo xam ne naka noonu la ko askan wi soxlaam ci lu mel noonu naka am nañ yaakaar ne mayo bi dina amaat beneen ndaje naka ci samedi bi mu war a tombeeg ñaar fukki fan ak benn si weeru maj te naka ndaje gi na ko def naka sa Tobacco Road mu nekkee sa Northern Banjul mbokk yi bu ñu bàyyee xel nag si juróom-ñetti fan ci weeru maac mu doon a doona a bés boo xam ne boobu la ñu jagleel jigéen ñi ñu màggelee ko ci àddina si yëpp réewu Gambie bi tamit jigéen ñi fi nekk ñu génn màggal ko ci seen wàllu bopp ci matuwaay googu nag QTV génn waat nañ pour waxtaan ak jigéen ñi xool naka ñi nga xam ne ñoo nekk di yëngu ci wàllu njuleke seenub taxawaay jafe-jafe ak itamit yokkute goo xam ne ñu ngi ko nekk di am jëmale ko ci seen wàllum njule gi ompale wuñ ne naka jigéen yu bari yu nekk ci biir réew mi si jamono ji ñu ngi yëngu ci wàllum njule gi te naka ñu ngi cee am naka ab jafe-jafe mu tax naka banxas bu nekk de saytu lu aju ci wàllum jula ge ci biir réew bu Gambie bi ñuy am naka li nga xam ne mooy trade fair bi pour dooleel leen te si jamono ji naka ñu ngi def seen fukkeeli yoon ak juróom ñu nekk di ko am naka sa bijjil jigéen yu bari yoo xam ne naka ñu ngi am seen njulay bopp ñu ngi bokk naka si trade fair bi ku ci mel ni Ramatulaay Faatu ak bo ñii ñëpp naka am nañ fa place naka ñu ngi wone mbir yoo xam ne naka yooyu la ñu nekk di jaay Ramatulaay moom mu doon naka koo xam ne moom moom naka banxaas bu ñu naan Dignify Garment moom naka doon koo xam ne ab jaaykatub yére la ci waxtaan bu ñu am moom naka xamal nañu naka la def naka ba commencé njulaam gi nii Fatou Jaaju moom naka moom moom banqaas bu ñu naan snack heaven mi jël naka ay fruit di ko defaree naka ci anamu snack moom mi naka ci matuwaay goo xam ne naka jël na ko mu ne lii naka doon na mbir boo xam ne daf ko jàngee naka ci dëkk yi nekkee si Eastern Africa mu ne moom naka njaay gu moo def naka daf ko bugg te naka njula la goo xam ne bariwul naka ci biir réew mi mu ne moom naka commencé na njaayam gi lu yàgg te naka si jamono ji mu ngi ut naka buntu boo xam ne moo koy dooleel Seynabou Gaye moom it naka muy jaay yére tamit naka di jaay yére yu ñu ñëw ba pare moom moom naka African Swag Collection ginnaaw doon gaaral kàddoon moom wax na ne am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne naka mu ngi ko jànkuwanteel si njulaam gi mu ne waaye naka sant yàlla mu ngi jéem a kotkoti pour gësa naka taxaw na ci tànkam mu ne naka mu ngi ñaax moroom yi jigéenam yi pour naka ñu topp mbir yoo xam ne naka yooyu la ñu bëgg bu ñu bàyyee ku benn yoon mu ne naka jafe-jafe dafa bokk naka ci dund mu ne kon naka mu ngi leen di ñaax pour naka ñu fas jom ci mbir goo xam ne naka boobu la ñoo def def jafe-jafe yoo xam ne naka jigéen yu am seenu banxaasu bopp ñu ngi koo jànkuwanteel mu ngi aju naka ci wàllu koppar ak kii tamit matuwaay goo xam ne naka boobu la ñu war a jël pour boole seenum njula gi ak seenub liggéey kër yi tamit naka taxaw seenum njaboot gi waaye naka ba tey ñu ngi continuer bàyyi ndeku buñ benn yoon ñu ngi téye naka si njula goo xam ne boobu la ñu nekk di def julay jigéen yoo xam ne naka ñooñu la seen tur génn ñu bari naka si jamono ji ñu ngi bokk naka si trade fair bi pour gis naka wane nañ yére yi ñoo jaay ak itamit ci lu ñoo yëngu te naka bu ñu sukkandekoo ci gestu gi wax nañ ne naka at mu jot jigéen yoo xam ne naka dañ dee bokk ci trade fair bi daf dee gën a yokk mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaata léegi ngeen dis doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeendoog jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam